waaw waaw 4 mai 2019 armée moo nekk noonu ci géew bi féete gos moog As Gawane armée rek si la jóge As bu la neex nga ne bàcc daje armée jël na ko waay yow bañ na ndongo loo bakkan ya bakkan ya aas gaawaan nàcc na daan na ko hee arma daan na ko arme ngi taala arme daan na ko arme bu rok énergie reefan la dëkk reefan la dëkk waaw waaw combat bu waalo moo leen woon ginnaaw dund bu géej a way dund bu seen dund taala njaay sa maa ngi kii wan na ginnaaw taala waaye alias Balde Male xalaat naa ñu xeex de alias door na tund mu jeng tund mbaa duñ la daan ñu ngay xeex kaw amoon na de door mu daanu dina ci am de taala taala sa mbër yi wala mi taala door mu daanu bi ee ñu ngay waaye yéen hypercure saf na di ñu nga koy bàccante rukkulaalo ee rukkulaalo wam mi mu bañ ee faqat ci biir daw na jël da koy daan waaye kanam bi amulam arbitre eh tur nañu borom taala jaay ma mu daanu la ilaha illallah lan moo xew nii écrit wàllu lu ñuy kaas écrit wàllu lu ngeen di kaas mais liiru lu xew lu ngeen di kaas kaay waaw noonu la affaire góor yàlla la am njaay bu yoree mbër bëgg mu nekk mbër dana nekk mbër waaye bu yoree mbër bëggul mu nekk mbër du nekk mbër mais kat appui daa ci biir combat bi wala. am na ñaari yoon. ku ko def moom kat appui na. après nga ñëw. ma continuer xeex bi man ragalu ma kii moom ma yóbbu mbabat ma bëre ba damm ñu ànd CTO mu ngi nii ma bëre ci mbabat ba damm ñu ànd CTO ak njambale man dama am mbabat bëre gu ma si arène sa groupe nag maa ngi bëggee waa Gale nekk sa groupe bi yëpp groupe Babacar Farigo Leewtoo yëpp maa ngi leen di bëggee di leen wax Forever maa ngi ñëw si kanam. xool mis waay waa naaroog miskit mi ee eh, naar déet waaw naar waay waaw waaw doone waaw maa ngi sant yàlla baax tay de feeñ nga ñëw ngeen sàdde waaw maa ngi ñëw waaw ànd ak seen doomu ndey kon du ko ñaanal yàlla rek waaw na ngay wax si man boobu Malick mu ngi daw Bagala daw na Forza mu naax may revanche muy jéem a bañ gars lu ñuy daw na ñoo ñu bëre ñoom ñëpp garga est ce que pare na ñun ñëpp nañu ñu bëre yow ñëw ñu bëre ah kon nag ay ñëw. <laughs> mais naa la. maa ngi raw Babacar. naaru borom Pikine borom Géejo way. waaw loolu dafa borom Ndar. xanaa naaru daa wooragul wala. daa. wooroo xanaa. koor gi daa commencé. koor gi commencé wul naaru. yow foo ne. koor gi lundi lay commencé waaye waaw. kañ lay altine ci jàmm. mais tey sa doomu ndey di bëre noo ko waaw waaw waaw waaw kii suñu suñu lépp la mooy suñu tëdd film mooy suñu lépp mooy suñu grand ci làmb tey amuñu luñ ko conseillé xam na fi mu xam xam na kañ la gëj ci fii digg bii nii xam na kañ la fi gëj Babacar tey ngay gis lu garaaw bu at bi sifflé defal li ma lay wax cax kii Babacar tey ngay gis lu garaaw kii gars yi xamuñu ko quoi mais daa bokk ci làmb yàlla na ko yàlla fay xolam. di mu seere la xolu waajuram bu mu génn àdduna yàlla na ko suñu borom fale barke Seydina Mohamad borom baax a ngi ni jet li waaw sant yàlla bu baax a baax a baax tey daa ni seen tête de file sax laa ko mën a wax muy bëre tey waaw général bay bëre tey moo tax ndongo yëpp a ngi ci ginnaawam waaw di ka ñaanal ndam bu seddu guy waaw xam nga te moom borom baax la li ne ci ñun moo ko def ci ñun waaw li ci ñun lépp moo def ci ñun waaw jikko gaynde gi nga xam ne nag mu ngi ci ñun te moo ko ci def si kanam tuuti nañu ko won te incha allah ci kàttan borom bi noonu lay demee waaw tey moom ah buy tàq la ñu yuuxu wala ñu yaakaar dañ ñu ciy gën a xam mat rek. bu gën a metti a xam. waaw la muy def adversaire bi lay xool lëngoor a ngongu xanaa gis na ko waa gis naa Ada Fass Onde Onde gisagoo Ada ba tey Onde ci loo ne Arim Seck wér sant bu wér wér sant bu Arim Seck Onde bëgg waaw siyaar naa leen Onde mu mel ni tey fii gëj nga fi tey nga ñëw fi di bëre xale boo xam ne dafa teglante ay ndam ne ci dynamique bu neex est-ce que euh, yow andi nga luy fere na xale bi. waaw yàlla baax na bu ci kanamee lañ ciy xam dara. Jalli nee na la bitig buy lakk la. lu neexoon waaye mu ne moo ci nekk bitig buy lakk la bitigu dof la li ci nekk lépp périmé loo laal sa biir daaw. lépp a yaam loolu mbaa dina ci xale bi. ah bu ci kanamee nga ciy xam dara. kontaan ci yow. sëñ Fallou. ah bi mooy sa ñaata combat rek. waaw bi mooy sama deuxième combat Modou. Babacar waaw. bi mooy sama deuxième combat rek. mais combat bi la moo tax mu yàgg am nga carte d'avertissement. non am naa carte parce que combat bi moo ko laaj Modou. xam nga pe Babacar parce que il fallait que rek xam nga ma jël ko jël ko teg ko ñu dama ci kam di dara quoi boo seet xam nga moom moo ma jiitu ci lamb seetaan naa fi ay yoon yoo ma jow xam nga di ko seetaan moom ma jiitu ci lamb quoi te moom mag te moom mag aussi kon fa ma bëri ko ak xel xam nga du ma ñëwee rek deesal xam nga ko baax quoi te ñu toog sama ginnaaw fa bëri fu ma jël sama temps quoi waaw maa ngi sant nag tamit na sama grand Aliou mii di sant sama grand Cheikh Anta di sant père Cheikh Neymar ñoom bu yooyin sant ko armée ba am formé këlëb armée dayoo bi maa ngi ko sant bu baax a baax di leen gërëm di sant tamit waa Parcelles Assainies rawati waa Réfane ka ma dégg Bawol ki ma dégg di la ñaanal yow ma daa fan xam nga defoo dara Modou Babacar defoo ko ma dara barke alxuraanu karim te lu ne ñaan rek xam leela fa lu cat ba suur wa di la jël nga avertissement lay dugar caatu jokkaan waa laale leen bokk laale leen bokk waaye tibbati na tànk ba xanaa ko daan tey nag waa mi lu ko dal waa dugar mi fu mu bëre e way ndaw waay waay dugar a waa Dugar yow. Babacar maa ngi ree. Ah, lii kay ku ko réewul amul bëñ. eew eh, waay Dugar mbaa daanu sax Dugar dina daanu. Dugar daan na. eh Dugar daan na. am yow bëgg na sant yàlla bu wér sant bu wér bëgg yow da ngaa compter sa victoire wala. ah combat bi de gis nga de mënu ma la wax nii la demee wax dëgg mënu ma la wax nii la combat bi demee sama mbokk daal la ñu nii ñun ñoom mën a waxal ñoom ñoo gis ñu ma yàlla xam na ne xaw ma lan moo xew ci combat na da ngaa def mu dóoraat la nga daanu. déggoo mu mën a wax combat bi nga la demee yàlla xam na ne xaw ma nu mu demee billahi wallahi taalaahi waaw combat bi nu mu demee yow. mais soo xoolee alliance Baldé tuñ bi mu ngi toj dafa jël coup def kadapi kii dafa bàyyeeku mu dóor ko mu daanu mais arbitre yi il faut ñuy bàyyi xel action yi. kon yéen ñu ko ñu bàyyi xel action yi. d' daal non d' accord. waaw mais dana bëgg a xool rek ñun dana bëgg a xool rek dana bëgg a xool rek affaire yi waaw dana bëgg xool affaire rek. xam nga lamba am na am yoon. yoon bi mooy yoonu recours. loolu moom yéen la wala. li ñu yoon may a xool rek a xool ko waaw waaye lii lan la nii yow sab kànnaar di jat di xool lañ ko bindal. lii de xanaa boo ko tëjee nit moom cey lamb man daal waaru kànnaar ba daal la ubbi moom ñu tiimale ko kay won ko kayit ka mu ne ko jàkk tey jàng rek di ja di tëj xool ke moom yor bantam tiimale ko ko xool ko moom aj ko ca kaw a kaw cey lii xool li mu yor ci suuf caxat la la mu yor ca suwaa looluy lang lii waa lii arbitre suuf la nga toj nen arbitre nag leen di yet yow dañuy dagg sa xaalis dañuy dagg xaalisam dóor na gaaroo gaar ak Ibra Gaabu gaaroo gaar góos gaaroo gaar de mbër mu mag la woon gaaroo gaar maama Ibra Gaabu gaaroo gaar a ngi dox ci koom gaaroo gaar a ci koom daw na jëli ko moom gaar daw na jëli Ibra Gaabu waaye lii lan la nii gaar Ibra Gaabu gaaroo gaar a ngi koy Ibra Gabou fàq na ko mboote yaa ilaha illallah eh, ana waa Gabou maa ngi seen góor a maa ngi gis këlëm maa ngi gis doomu dangu fara loolu Fallou Ndiaye ku tëgg moo jamaa ngi koy seen moo jàng ne le waa gis na ko mu ngoongu bu yoof chaque verte ba Talla Ndiaye à gauche Talla ngeer bu sap Fallou Ndiaye fa jaar ay combat yi doy war ka ñu ci loobu yof taala Ndiaye Fatma Dia pël bu rafet yaa ngi way de cey lii bëtt na ko Talla Ndiaye eh, wër na ko ndombo loobu yëfuur na anaconda waaye jaan ja anaconda maa duñ la lem dugal ci saako bi aha kay waaw da daanu wala waaw daanu na bu yàgg kat appi am na de kat appi am na waa ji daan na anaconda daan nañu anaconda Talla Ndiaye kay faas aada bëgg naa la maa leen bëggee ci loo ne. ah ñoo ngi nii di waaj rek. ana waa Fass. ñëpp a ngi waa Fass waaw. loo yëg actuellement nii. Touba jërëjëf mi lay topp boo ko gisee lu mu yokk. waaw jom rek. waaw. ki ngay bëre loo koy wax. li wax na tey rek. tey. Babacar maa ngi lay fay maa ngi lay ziar. ana Fass yaa ngi tey muy Fass ak Pikine. lan lu ko war ci bis bu mel nii. lu ko war mooy mu respecté waa ji jox ko cër quoi xam ne mbër lay bëri koo xam ne am mbëru expérience la waaw wax nañ ko loolu yëpp xamal nañ ko mbëru expérience ngay bëral boo ko joxee fa nga jox ko cër pour daan ko waaw. xalaat nga mu daan ko bu gaaw. waaw jox bu ko bu ko joxee cër da koy daan jëlee bu gaaw bu fekkee jox na ko cër waaw waaw. <laughs> Fallou bëgg naa la. ñu ngi lay fay Babacar bu baax. man waxuma li nga tëgg tey mais li ci kaw laay wax noo def ba taxawal ko. waaw mais Babacar xam nga rek ñun lamb moom yaa ma gën a xam chaque jour rek ñuy ñi ma def suñu ay pexe yi di fexe vraiment amateur yi di kontaan di fexe yi di bég ndax boo xoolee tey ñoo di Ada Fass le fou yi bu yusi kon yaakaar naa bu baax di sant tamit sénégalais yi di sant amateur yi di leen sant yéen tamit ndax yéen vraiment communication bi nga yor ñun ñun xamuñu ko sax fuñ ne yéen a fa yéen ñuy taxaw du ñu jàppale loolu rek moo waral tey ñu am doole am kattan bu mën a def lu mel nii. kon daal dañuy am mbégte ci amateurs di am mbégte ci journaliste presse bi yëpp di am mbégte tamit ci Ndiaye production bi yëpp bàyyi ñu kenn lii nag moom waaw lii nag moom mooy mooy dajab gi mooy ndewenal bu ñu jógee ndewenal nag ah dem ci li nga xam ne mooy daañu góor gi muy combat bu solo ndax avant ndewenal ndewenal bi mooy Mouta Kewel ñoo di caatu yaraax ak ki nga ne mooy dab daan ani Nokia ak euh, booyu parcelle agogo agogo jël ay combat yi neex macha allah toftal ko ci kon yaakaar nañ ne loolu lu am solo lay nekk le 9 juin bu ñu jógee le 9 ñu jëm la 27 juillet nag ci la ñuy ak yi nga xam ne mooy Tyson 2 andi Franc ak Ngeebu Sab Farouz ak doomu Dangu andi tamit combat bi nga xam ne nii mooy Mama Lamine ak Jokkel yaakaar naa loolu lépp le 27 juillet la fële ca bu neexee yàlla kontaan ci kontaan nañ merci. jaajëf. Babacar. ni xam nga fii nga taxaw de. bu baax bi naa ko ba trop. dimanche passé de yaa xaw ma le premier mai de yaa fi jël fi nekk. tey ngay bëre ak ngeer. waaw Babacar. ngeer ngay bëre. Uh-huh. ngeer laay bëre. mu mag la. ñii ne Franc daa bëgg lu yomb. yow looy wax ci loolu. xam nga ni kuy chaque dimanche kuy tax ngeen bam fii. xam nga ni bëgg lu yomb. manque de adversaire adversaire yi ma manqué yow. ñoo ma trois adversaires ñu bañ. ñan ak ñan. Kobra dafa bañ. doomu Dangu mii dafa bañ. mii dafa bañ. Bébé Saloum même chose dafa bañ. Neko Lô dafa bañ. comme man tamit bëre moo ma tax a jug quoi. si. loo koy wax. waaw di wax yàlla na ko yàlla defal jàmm bu bés ba yàlla may ma ndam ci kawam waaw. jaajëf Talla Dangu ngi. Dangu borom góos bi. waaw waaye léegi nii góos bi mooy ñëwaat rek. ana góos bi. moo ngi ñëw. mais Farouz ngay dajel de. waa yow furu dañ koy burle dem si ñoon waay waaw. foog nga burle ko yow. daa garaaw fii senegal la loolu dafi te fu sax amatul Sénégal. furu amatul Sénégal. bu tàkkee ruus ngay dem. ma ne foo yëpp ay vert. bu tëwee bu tëwee ne du fay. ñu xaar ka moom vert rek ñu dem. lu tax nga jël ko. waaw mais bëgg a bëri rek. bëgg a bëri rek moo tax ma jël ko quoi. waaw bëgg a bëri rek xam nga su may mënoon ñu ma. ma jël ko rek xam nga yaa ma gën a xam. Fara mi nee na da koo daw moo tax sax mais seen combat non man loolu du ma si wax quoi yooyu moom du ma si wax quoi am na combat maa ngi combat aw ma jot yooyu suma combat laa tal bu ñu waree bëri rek dinañ bëri jaajëf jaajëf. waaw. Ngeer borom taay si nga. Eh, doomu na yoon na seen. waaw. Fara. déggoo li ma la waxoon fii. du ma ko may dara. lu tax doo ko may. xale laa comme moom. ah dama teel a bëre rek. mu ngi ci confiance de. man maa ngi ci lan man maa ngi ci lan. te daa mel ni daanoogul de. mais yàlla baax na. est ce que mën nga ci moom lu bari comme ni parce que gars yu dañ ne est ce que ngeer mën naa daan franc. yàlla baax na ba jour bi. am nga lu ko daan. xanaa yow suivre samay combat. ala xam ngeer. yàlla rek moo dul daanu. mais kuy takk ngem su bëree da ngay daanu. xaw ma ndax dégg nga ma wala déggoo. maa ngi la dégg yàlla rek moo dul daanu. loo koy wax moom. na indi yar ak teggin ma bëreeg moom si yar ak teggin. mu indi leneen ñu def guerre mondiale 14 juillet waaw ah, du ma arrière du ma maye dara incha allah. ngeer borom Tyson. waaw borom Pikine borom Sénégal borom ginnaaw. maa ngi ñaan yëpp Pikine ñëpp pare suma père yi sama ginnaaw làmb ñëpp ñu si ginnaaw ñëpp ngi koy pare maa ngi ñaan yàlla suñ borom li nga xam ne moo am ndam mu may ma ndam te xam nga lan moo l'essentiel combat dinaa liggéey. nekk liggéey dinaa liggéey. ba bu ma simee koo àdduna yëpp d' accord ne liggéey naa li si loxo yàlla. su ngeen xeexee. mooy xeex. yàgg fi yàgg Franc. da gis mu xeex ak kenn. daa ragal mbaadu. déggoo lu ma la du xeex bu xeexee dañuy daje. mos ngaa gis sama ari ma sama combat ma séq benn tànk arrière. combat bi lay leer incha allah. ah parce que Serigne mais xool per Sala li mu sol. Talla Ndiaye. xoolal lii ci noir. Talla xoolal ma lii. non comme xale yi yéen da ngeen ñoo bëgg a yóbbu retraite ñuy bañ bañ la rek. da ngaa xalaat dem ndax saa yi ma kii nga toogal da xam nga ko. waaw kii moom man ak moom ah, gaaw ak dimanche la. bis dagul ci diggante bi sama rak sama rak kii moom sama rak sama xarita sama lépp la. moom da daan bëri. ah daanaka bëri na de. ndax ndax Moussa. gën a mas naa. mos naa fekk benn histoire. waaw Côte d'Ivoire sama benn frère di xeex benn benn benn anango benn mooy mooy mooy aw soo yooyu. ñu dem tipp tipp tipp tipp sama waa ci ginnaaw ni ko booy dugg ko. sa waay doole sa waay dugg bi jóg naan oui c'est monsieur qui a dit dugg ko c'est lui qui waaye moom it dugg na gaay ba taay. Zal Zal daa mel ni mas ngaa ñamante de day nga de. waaw bëre ma arène. Hmm. daan naa portable def naa ko. waaw ah, compétir wu ma déedéet. <laughs> yaa saala. non saala sama mag la sama lépp la sooy wax ci làmb nekk sooy wax sax dama wut waaw donc dañoo miinante. mais fu mu jàngee solo. Ah, fu mu jàngee solo. dëgg naa ne ko doon nag te yëree ko bëgg moom yëree ko bëgg waaw sa sànq ba pare rek nga saal yóbbaale ma. waaye Talla bëgg kon Matar. Matar bëggee naa la. kii du am dara kii gardien la moo ko dugal ci làmb. luy moo ko dugal ci làmb. lan mooy gardien mairie la mais di garder foofu moo gars yi ne ko da nga war a mën a bëri. yaa ko ko wax yow nga ne kii gardien mairie la. mu ne gardien mairie man ku ma mës a gis mairie moom ñu may lu métti man combat yu métti laay bëree wax naa la phobie dama koy burle dem sama yoon waaye yow kii la ragal barki sëñ Bamba ragal la oui. kon de kii du ma ko jompal dara. amul lu ma koy séddee. moom nee na ragal nga amul lu ma koy xaar kii du ma xaar ci dara. lan moo tax mu ne ragal. déggoo li mu la ragal laa du ma ragal baa bi suulee baa bi du am dara. te joxos du ma ko may ñebe. suuf la na Boy Diop Thiatou Nguéweul Boy Diop à gauche Thiatou Nguéweul à droite Thiatou mi nag Ada Fass ko mujj a Boy Diop mu Falaye Baldé eh, Caatu Ngéwél daan na Boy Diop da dëj sukkër bi dëj ay waay dëj nañu Boy Diop xool ko xoolal Boy Diop ndaysaan onde ngi Talla Ndiaye ca gàllay xoolal Malick Ngom la ñuy waxal arbitre Onda Ngongu Onda Ngongu war a bëreeg Ada Fass Ada Ngongu ndeysaan dëppoo leket wala ak lay tan ca bopp ba moom Ada Fass laa ilaaha illallaah Talla Ndiaye Talla Ndiaye Ada Ngongu Ondu la fuyu Pikine ak Fass mu yàgg dëgg dañoo yàgg a joŋante mu yàgg a métti yàgg a tar Malick Ngom arbitre bi Malick Ngom arbitre laa ilaaha illallaah béjjën ya seen naa fi tengaade taala tengaade ngi lii mooy tengaade kii dem tool yaay bay Babacar li yàgg nga kaa dem tool ana ko solee heure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 eh on aada aada façon koy but xanaa lii mooy dama la bëgg a jaay doole on a ngi dóor eh on a ngi dóor aada trois appui aada dinañ mu daanu dóor nañu aada faas war nañu ko ndombo dóor nañu dóor aada faas metti aada maa di nga génn foofu aada on dina la daan eh aada ngay daw laa ilaha daan daan nañu aada faas on fu daan na aada faas laa ilaha illallah duma daan taala njaay on fu xool aada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 suñu grand la dafa teel a bëre bu ndaw la teel a bëre. mais lii lii xaaroon ngeen ko si combat bi. bañ a xaar ko jàngal a jàngal ah munu nekk. munu nekk. Ndiaye tey la woon samedi Talla Ndiaye waaw tey la la 4 ah. du noonu la demee Ada Fass Onde le fou nag.